voilà chers internautes kon ñu ngi toujours seen émission prévention sanitaire ak thème bi nga xamante ni moo di infection vaginale euh, docteur kon dañuy ñëw rek ci traitement bi. <laughs> traitement bi c'est vrai que je voulais suggérer ah bi quoi euh, comme li ma la ko waxee rek sànq euh, boo amee joomu jàngoro bu ci nekk ak na muy manifesté donc bu ci nekk ak traitement am hmm, logiquement c'est vrai que bu nekkee foo xam ni danga xalaat ni lii la. surtout bu fekkee sonal na nit ka ñëw par exemple euh, jànq bi nga xam ne dafa ñëw euh, marié wul euh, nga xool ko mu am ay perte blanche caille beauté et cetera nga ne lii candidat candidat albicans la ajal ah, nga koy bindal analyse pour mu dem defi analyse tout de suite tu as envie da nga am peut-être da nga bëgg soulager ko cest à di jox ko ay garab yoo xam ni xesanam bu metti boobu tax mu fajarula la yow docteur bi yow gynécologue bi dina xaw a tane donc da koy jox benn garab boo xam ni ndox saabu boo xam ni mën na koo raxase kanamam suba ngoon suba ngoon suba ngoon boo ko raxasee ba pare comme luy xesan la am na benn crème boo xam ni boo ko nëpp nëppalee ba mu wow am na crème boo ciy diw am na tamit euh, ay ovules yoo xam ne ay doom yoo xam ne da nga koy def ci biir kanamam fi muy sëyee ci vagin bi parce que infection vaginale la ci léeg-léeg day dem ba ci biir a biir a biir donc kooku c'est évident que bu fekkee koo xam ni ndawam a ngi fi musul am rapport doo ko jox Hmm, donc ko am jëkkër wala ka masa am rapport nga koy jox ka amul jëkkër nag euh, plutôt ca mësul am rapport kooku yaa ngi koy jox peut-être ay garab yoo xam ni daf koy naan mu jaare ko ci biiram dem ci biir kanamam hmm, donc kooku traitement infection par exemple ak candida albicans la am na yeneen garab par exemple yoo xam ne da nga koy jox ki nga xam ni moom moo am Gardnerella vaginalis mooy li ma la doon wax ni odeur euh, jën bu nëb lay doon kooku généralement flagelle lañ lay joxe bon flagelle c'est vrai moom lañ gën a xam mais métronidazole métronidazole moom mooy dénomination commune internationale am na yeneen euh, spécialité mais ñaare bu fekkee yow da nga koy jël subangoon ngoon suba ngoon suba ngoon ay 7 jours 8 jour wala 10 jours ñeenti doom rek dina baax pour nga jox ko sa jëkkër pour moom mu faj ko quoi yu mel noonu généralement faj ku góor ki moom mooy gën a yomb waaw ci infection génitale moom li ci bëri. on fait traitement dañuy def traitement ku góor gi ak traitement jigéen bi mais seetlu nañu traitement ku góor gi moo gën a yomb ñeent doom la rek boo xam ne boo ko boo koy jël da ngay reer ba pare reer ba suur nag parce que flagile boo reerul ba suur après daf lay def ay miir nga jël ko donc sinon bon ñaar yooyu daal ñoo gën a fréquent ci ci kii bi quoi donc traitement pour yeneen yi moom ça cela suppose que da nga def ay analyse mu woon la par exemple am na infection ak chlamydier ñaari xam na peut-être complication bi ce sera après le traitement donc euh, am na neneen nu ñu ko traité mais dans tous les cas da ngay traité ku góor ki ba noppi ku traité ku jigéen ki voilà ñaare nag góor yi ñoom dañu am réticence dañuy xaw a bañ ci traitement beeg yooyu parce que gisuñu signe parce que dara yëguñu ko hmm? bu ñu yëgul dara nañ ne ah yow yaa war a faju yow ku jigéen ki et cetera man saba donc bu boobaa moom bu fekkee loo xam ne infection bi day ñëw ko ñëwaat. man dama jël sama téléphone woo ko góor ki ne ko jàppale ñu ci traitement bi parce que na nga ko amee nii na ko sa euh, soxna amee nii yëg ko yow noonu nga ko am da nga kaa yëgul rek mi ngi sa biir yaram mi ngi sa biir kanam mu ngi sa biir deret d'accord donc loolu surtout moom mooy traitement yi nga xam ni moom la ñu faral di gën a di gën a di di gën a jëfandikoo fii nii ci ci euh, traitement ci kii ci infection génitale jigéen yi quoi d'accord docteur mais docteur ki nga xamante ni am na infection bi mais xamul parce que am na ñu bëri ñi nga xamante ni xamuñu seen yaram am na ko mais xamu ko te traité wu ko kooku noonu ban risque la am ci ñàkk traitement boobu noonu mu jot. waaw ah, traitement yi moom boo ko waree def te defoo ko boo xamee boo boo boo amee infection sax xamoo ko loolu tax léegi léeg sax day baax boo toogee sa yaram yëgoo dara sa xel xaw a tey tuuti nga ne ah man kat lii c'est trop lii ma yàlla beralkat kat euh, ma xool ndax ndax dëgg la am déet baal ma dem xool sama yaram su hmm? kooku hmm, surtout ci ñi nga xam ni dañuy sëy hmm? ñooñ surtout ñoom lay gën a ñaax pour léeg-léeg buñ toogee du gisuñu dara yëguñu dara ñu dem di xooli li leen consultation de routine même bu dul dara sax léeg-léeg nga dem xool sa tension léeg-léeg nga doo xool ndax am na suukar tuuti suukar léeg-léeg nga doon too xam ne sa mu jabet wala dara de la même manière ñi nga xam ni jigéen lañu dañu war a léeg-léeg ñu ñëw di xool ci seen yaram xool ba xam hmm, est-ce que am na problème bu raam nar a jëm ci ñag ba walla est-ce que amul benn problème macha allah donc lool da ci am importance donc complications yi mooy par exemple bu fekkee am nga infection surtout génitale yi nga xam ni c'est à chlamydier chlamydier moom dafay fat ñëpp xam nañu dafay fatt butu njurukaay gonocoque hmm, ñëpp dañuy xam ni dafay fatt butu njurukaay donc boo sëyee ñaari at hmm? loolu tax ñi ñu gën a gis euh, ñi am infection génitale mooy ñi nga xam ni dañu dañuy sëy par exemple toll ci war a am ëmb toog at wala ñaari at amuñu ëmb ñu ñëw bu ñëwee bu ñu leen gisee gis ni dañu am ay perte blanche bu boobaa nag ñooñu surtout la ñu gën a yàpp ci analyse yi xaaral bu bind sama këyit sama bulletin d'analyse ni la demal ci hôpital sàngam def analyse perte blanche yi xool ba doomu jàngoro moo la téye ba boobu léegi amoo doom hmm? donc bu boobaa nag léeg-léeg bu ñëwee ñu xool ni chlamydia la am wala mycoplasme la am la wala gonocoque la am bu boobaa ci lañ koy fajal loolu ba noppi wax jëkkëram mu faj ko wax wujje mu faj ko waaw voilà mbokk internet KS TV kon euh, ñoo ko déggandoo bu baax a baax dégg ngeen docteur euh, Seck leeral yi nga xamante ni indi na ko ci feebar bi nga xamante ni moo di infection ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te surtout ñun jigéen ñi ñuy gëstu di xam suñu bopp ndaxte loolu am na ci solo bu baax a baax waaye docteur damay ñëw rek ci mesure de prévention bi parce que bu ñu nee prévention sanitaire mesure de prévention bi moo ñu gën a yitteel en fait pour que internet yi mën a xam bu baax baax. prévention en toute chose xam sa bopp euh, dafa baax quoi parce que il euh, y a l'autre que les légistes qui disaient nul n'est censé nul n'est censé ignorer la loi donc nul ne doit être censé s'ignorer soi-même donc ku ci ne dafa war a euh, di xool nan lay def ba jege ki nga xam ni tane na ko mu mu mu yee ko bu baax ci yaramam ni mu bundoo Euh, lan moo ko mën a euh, daan ci ay jàngoro hmm? ak nan la koy nan la koy faggandoo hmm? donc loolu la ci am solo donc loolu tax ñu ni hmm, ci hygiène intime bi da ci am solo ñu ñëwaat ci parce nan ngay toppatoo sa kanam yow ku jigéen ki ndax da ngay jël sa baaraam tout le temps di dugal ci biir di raxas di loxateeg yooyu loolu boom dañ naan na carrément bul ko def parce que doomu euh, am na doomu jàngoro yu baax soldat sax lañ leen di wooye hmm, soldat hmm, yoo xam ni ñooy aar sa vagin aar sa sa sa pH vaginal ba nga xam ni doomu jàngoro bu tuuti bu noree dugg rek ñu daal ko faagaagaar mu yem fa hmm. si bu boobaa xam nga day ànd ak perte normale yi génn éliminé wu looloo tax léeg-léeg kanamu jigéen di di di di di tooy parce que perte donc euh, euh, baaraam donc booy raxas yemal ci biti rek yemal ci biti te nga xool ban façon euh, produit nga war a utiliser ñaari produit yu am parfum yi produit corrosif yi yooyu yëpp dañ leen di tere hmm? li gën daal mooy nga am benn euh, euh, benn ndoxu saabu boo xam ni c'est doux hmm? c'est doux amul pH pH physiologique pH boo xam ni hmm, ndoxam dafa nurook méngook ndoxu ndoxu ndoxu vagin bi ak sa kanam donc loolu dina si am solo koo xam naa boo waxtaanee ak sa gynécologue boobu hmm, dina la wax ban façon parce que bëri na waaw mënoon na bañ am parfum daal parce que ñaari parfum lu mu lu mu rax rek day yàq ci seen saf-safal yooyu ñuy faral di jëfandikoo moom dañ leen leen baaxul hmm, parce que yàlla moom safal na li muy safal pare ba mu ko bindee la ko safal donc macha allah hmm, donc aajowul sàppali ah, sàppali moom yokk xorom day day day day yàq ci waaw donc euh, saf-safal moom dañuy bëgg ngeen koy bàyyi carrément donc bul dugal sa loxo. ba raxas xamal nan ngay raxase te ñaari sax li ci ëpp hmm, li ci ëpp hmm, euh, ndox rek doy na bu fekkee sa kanam la ajul ngay jonje ko jongaat ay surtout njàmpe bi nga xam ne moom ngay jonje sa peau noonu del ko éviter di ko sa kanam waaw parce que ñaari suñu saabu yi surtout yu ñu sangoo saabu yi dafa am pH acide boo xam ni dafay agressé sa kanam hmm. donc rek doy na sa kanam benn gel boo xam ni sa docteur moo ko xool ba xam ni kii baax na léeg-léeg nga koy utiliser rawatina surtout boo gisee règle ba set parce que ci période boobu quand même da ngay soxla peut-être touti hygiène hmm, par rapport ak la vie de tous les jours par rapport ak yeneen jours yoo xam ni gisoo rek voilà donc boo ànd ak sa jëkkër ñaa ñaare dañ naan boo ànd ak sa jëkkër nga dem sawi hmm? parce que boo sawee peut-être euh, infection bi naroon na jóge ci moom surtout rawatina infection euh, urinaire yi mën na mën a éliminer wu Hmm? d' accord ci ñu ñaax tamit góor ñi. Hmm? ñu ñaax góor ñi bala ñoo àndateeg seen soxna seen awra ñu koy raxas parce que foog muy set. mënoo jël awra boo xam ni fu ne taxawaalu nga ko par exemple boo nekkee ci bureau boo xam ni wala usine boo xam ni toilette euh, publique ngeen di am. Hmm? ndox moo xam ni wala loxo yi nga xam ni raxasoo ko ñëw de façon voilà lenn sax xel waru koo nangu ko xel waru koo nangu jël sa awra boo xam ne raxasoo ko xam nga ni set xet setul nga koy dugal sa kanamu jabar kooku moom wax dëgg yàlla wala lu ñu war a xoolaat la donc infection garde la vaginalis yu bëri euh, yu góor yi ñoo koy jox jigéen ñi parce que problème hygiène la ci su ci góor ñi lay jógee donc foog ñuy góorgóorlu hmm, di yokk seen hygiène wax ñu tout le temps raxas raxas raxas mais au moins bala ngaa tëdd ak sa soxna au moins nga am noo mel nga dugg ci wanag bi sangu ba hmm, xaw a clean bu boobaa sax xam naa bon soxna si euh, fa lay gën a ñëwul euh, sawar ci affaire yi ah voilà bu la gisee nga xaw a clean tuuti mais bu fekkee da nga jóge fële rek euh, sa waaw sangu woo defoo dara ah non non non mooy loolu mooy loolu Adja Sophie <laughs> voilà donc si surtout mooy mesure d'hygiène yooyu la ñuy dénkaat suñu jarbaat yi suñu soxna yi pour ñu ci bàyyi tuuti xel hmm, c'est pas très très compliqué parce que le vagin se lave lui-même on a l'habitude de dire yàlla ci boppam moom mooy raxasal boppam vagin bi donc yow booy raxasal peut-être laalal tuuti ndox hmm, hmm, et puis c'est fini quoi. jarul ñu ci non non non jarul yi seen ah, li nga xam ne dañ ciy sonn di ko raxas yàlla raxasanal ko ba pare. <laughs> macha allah macha donc ndox rek am nañu gynécologue yu bëri yoo xam ne dañu naan ndox rek. tout au plus nag boo demee ba am infection nag danaan jëlal tel produit hmm? bon du ma bëgg ñaare di tudd ay produits parce que gynécologue bu nekk ak la muy bind sage-femme bu nekk ak ay produit mais am na produit yu bëri yoo xam ne ñoo ngi ci marché yi ñoo ngi ci kii yi euh, gynécologue yi xam nañ ko sage-femme yi xam nañ ko même euh, sa pharmacien yi nga xam ni moo la jox ay conseil mën na la conseil ay gel yi nga xam ne c'est des gel yoo xam ne c'est des gel intime yoo xam ne ça n'agresse pas du du du du du jaxase sa sa kanam. mais docteur bëggoon naa tamit nga ñëw si kii coton yi ñuy faral di utiliser est-ce que loolu tamit du am benn kii si ñun. waaw xam nga coton boo nee coton rek ñuy daggatu coton ci biir bu des. Hmm? donc bu fekkee am nga par exemple règle jël coton di def ci biir. Hmm? mën nga dindi gaa lépp mais am na tuuti coton yoo xam ne mën na des ci biir te bu desee ci biir am na deret yu moo xam ni moom moo cee taq te deret milieu de culture la deret doomu jàngoro bu ci nekk dafay dafay dafay dafay dañ koy ful mu gën a rëy di gën a ak di gën a multiplier wu donc facilement boo utiliser coton facilement mën nga am infection vaginale donc liggéey daal mooy li nga xam ni da koy teg ca kaw rek hmm? d'accord mooy morso ñoom maam yéen maam doon utiliser ba léegi bu fekkee da nga koy utiliser bu ngoonee nga fóot ah bu fekkee nag yooyu xewe na léegi man je suis vieux jeu de dégg man je suis vieux jeu dégg sànq ma naan la am na askumba rek laa bëgg ah hmm, askumba rek laa fonk kooku jamono ñoom maam la woon parce que dañ ci gis njariñ ah morceau boo xam ne morceau bu set la surtout bu fekkee amoo possibilité jënd dem ca pharmacie ba wala ci boutique ba jël euh, serviette hygiénique donc nga jël sa benn morceau boo xam ne morceau côté boobu mu ngi mel ni comme couche yu xale yi rek euh, xam nga couche suñu maam yi moo gënoon baax ci xale yi que maintenant ak couche parce que euh, morceau boo xam ne coton la du du agressé du du du du du du la indil benn jafe-jafe Hmm? donc ba léegi am na ñu koy utiliser man ba léegi du ma hésiter ni la boo amul njëgu lii jëlal sa morceau bu set sa hmm? protège hmm? boo ci tegalee ñaar ba ñett ba mu xaw a hermétique ci biir règle yi di nga mën a gérer l' essentiel mooy régulièrement en fonction bu fekkee règle yi dañu bëri nga koy teel a jëlal beneen morceau bu fekkee règle yoo xam ne nag bëriwul mën nga ko yendoo ba ngoon wala yendoo ko ba midi changé ko guddi nga changé ko naa mu bañ a yàgg ci yow quoi parce que bu yàggee aussi deret yi dafay dajaloo ca mën nañu indil ay jafe-jafe. d'accord docteur mbokk internetu KS TV gis ngeen ñu ngi woon seen émission prévention sanitaire docteur pour terminer rek bëggoon naa xam yow seen sa liggéey yan jafe-jafe nga ci jànkonteel aussi. Euh, ci problème infection génitale yi wala liggéey gynécologue de façon générale liggéey de façon générale euh, moom mooy euh, surtout maladie yi xam ni fonk ñu rendez bu c'est vrai que c'est difficile Euh, léeg-léeg nga gis malade boo xam ne da nga koy jox rendez-vous mu ne fàtte naa rendez-vous ba mu hmm? defoo naa ne loolu Touba rek laa am xam nga saa Touba la quoi man def naa Touba 10 ans donc euh, mais euh, dina ci am importance quand même ñu góor ñi c'est-à-dire borom kër yi di ci impliqué wu boo sa soxna yendoo hôpital par exemple ñëw visite dina ci am importance bu demee nga xool ko xoolal ko rendez-vous yi di ko ko fàttali loolu da ci am importance euh, beneen problème mooy aussi euh, croyance yi ñu am ak rumeur yi loolu aussi beneen jafe-jafe la ngay jàkkaarloo sama laat wax nga ko wax ko la nga ko wax ba noppi mu génn ñu wax ko leneen wala goro ba wax ko leneen wala njëkkale wax ko leneen finalement moom elle est tiraillée un peu quoi moom du xam lan la ca jàpp ndax yow docteur am mi nga ko wax ndax loolu la jàpp wala njëkkale wala goro goro ba nga xam ni daanaka euh, lu mu ko wax daf koy bëgg a topp hmm? donc loolu aussi wax dëgg yàlla bu ñu sañoon euh, goro yeeg njëkk yeeg euh, waa mbedd mi di ñu jàppale ci yu mel noonu ah ñaare ku ñëw insister ni ma lii lañ ma wax ca mbedd ma man ko xam nga lan la soit nga topp la mbedd ma nekk ah wala nga topp la ma la wax beneen yoon boo ñëw rendez-vous nag beneen yoon boo ñëw rendez-vous taay la ñëw fii yeemal ca mbedd waa mbedd ba mu di jënti la. ah yàlla wax yàlla wax yàlla c'est pas évident donc loolu daal d'habitude moom la ñuy gis quoi ci problème yi et eh surtout bon ñi nga xam ni aussi duñ mën a teel ñëw c'est pas évident. parce que ñaare suñ consultation liste la ñu jël liste bu jeexee mm, du ñu bëgg a wàcc dama nekk ci leneen donc am na ñu bëri ñoo xam ne du ñu mën a teel a ñëw mais heureusement bon fii moom daanaka chaque jour saa yoo ñëw di nga fi gis gynéco il suffit juste nga essayer ñëw suba gi. donc euh, loolu daal moom mooy problème bi ko mooy surtout problème observance bi observance bi mooy li ñu la wax nii defee ko noonu di jàppale ñu ci topp rendez parce que. Euh, comme li ma leen di faral di wax rek ñoom ñëpp suñu jarbaat lañu donc euh, euh, ci bu docteur bu ma malade amul woon doctor du am donc ñu ñu war a respecté lañu donc ñoom ñoo tax mu toog fii bu amul bu malade bu malade amul woon vous n'allez pas venir ici trouver un médecin peut-être feneen ngeen may gis et cetera ca cantine dañ may jaay wala leneen donc ñu ñu respecté lañ macha allah donc ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp wér yéen aussi ñi nga xam ni yéen a bàyyi seen yite yëpp ñëw fekk si surtout seen thèmes yi nga xam ni moom ngeen mbub mën moom moom ngeen yiire euh, seen émission yi maanaam mooy prévention mooy faggu li ñu naan fagaru moo gën faju donc macha allah yal na yàlla yeggee fu fu ngeen ko fu ngeen bëgg mu yegg fa parce que euh, loolu yëpp njariñu askan wi la hmm? bu njariñ bu njariñu askan wi matale rek daanaka ñëpp a koy bokk macha allah. ah voilà docteur kon di la remercier bu baax a baax xanaa rek nga daal di joxe sa dernier mot. waaw dernier mot bi en fait euh, euh, euh je pense que euh, tey du doon première yoon bi du doon dernière yoon bi. Hmm? ñam naa ko neex na banaa ko moom gisuma ko fenn. ah man de neex na sama sama boor ma macha allah. ci xam naa boo leen dematee rek après ngeen xoolaat beneen thème boo xam ni dina la dina soxla askan wi mën nañ ci sax waxtaan avant. et ñu xool na lay def ba gën a yaatal rek euh, xam-xam bi parce que xam-xam bi yàlla dañu ko dénk ci askan wi rek euh, moo ko moom du moom du ñun du yéen askan wi la donc euh, macha allah bon saa yu neexee rek ñëwaat leen kër gi moom mi ngi fii. seen kër. voilà merci beaucoup docteur Seck mbokk internet yi kon euh, ñoo ko gisandoo gis ngeen dégg ngeen bu baax a baax euh, docteur Seck gynéco li nga xamante ni moom la fay développé mu nekk lu am solo kon mbokk internet yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax leen jox dig daje rek xam naa ba mercredi incha allah euh, seen émission prévention sanitaire nag tous les mercredis ngeen koy am incha allah dig daje rek ba mercredi beneen incha allah di lay ñaanal ñëpp jàmm di wax rek fagaru moo faju ñu bàyyi xel bu baax a baax ci suñu wàllu wér-gu-yaram jaa ngeen jëf